auzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi nuy seetaan te di déglu ñu dellu si seen jataay bi nu baaxoo am di ko amale fii ci nga xam ne moo di 24actu yi ñu ciy ànd ak yéen ci sunu jataay yi nga xam ne dañ ko fas yéene di ànd ak yéen di ci waxtaane lu jëm ci wàllu diine ak loo xam ne actualité la boo xamante ni danañ ci mën a waxtaan tey ci nag ñu bëgg a waxtaan ci lu ci wàllu ginnaaw bu nga xamee ne sunu élection yi génn nañ ko def nañ ko ci jàmm ba génn ko ba wane ne am na koo xamante ni moo jël raw gàdd gi ñu doon raaj réew mi loolu nag lu ama am solo ci am réew te lu ama am solo tamit ci ay julit jullit bu nekk war naa tànn ku ko jiite yonente bi salaahu salaam nee na woon doonte ñetti nit ngeen wut leen ku leen jiite lu toll ni kooku lu Sénégal ni mu rëyee ñu ñu war a jiite ñu def ko ci jàmm ñu bëgg cee indi nag ñeenti tomb set seet candidat yi doon laaj réew mi buñ ci jógee ñëw ci ñi nga xam di ñi doon woote citoyen yi buñ ci jógee ñëw ci journaliste yi nga xam ne ñoom amoon nañ ci lool buñ ci jógee ñëw tamit ci kilifa diine yi nga xam ne ñoom it amoon nañ kàddu ci mbir mi. nit ñi tamit demoon nañ di woote ji ñu doon woote. ngalawaay ñi doon wote nan xam ne wote bi nu doon def ak waat la ngir la moo xam responsabilité diw sàngam naa ko jàppale ndax mu jóge fi wala na fi diw na toog wala nangam te fekk na sa intérêt bopp dong dong ma taxoon loola bàkkaar la bu fekkee da nga ko tegoon ci ni diw sàngam moo gën a man moom laa yëgal ne moo gën a man moo tax ma doon wax di ko campagnal di ko duggal ci roq yi di ko waxal nit ñi bu fekkee loolu nga ci jublu gisoon nga moo gën programme loola sa jaan na wax nga ko bu ko nit ñi defee baax na mun ko deful baax waaye bu fekkee yow da ngaa jàppoon na rek waa ji bu faloo ah xëy na yow di nga am poste bu baax sa intérêt dina taxaw nga bëgg a sacrifice peuple bi nga naan def lu araam la loo xam ne da nga ko woo da nga taxaw yàlla laaj la sa carte woowu ak ki nga daan waxal lan moo taxoon nga wax te yàlla mi lay laaj moo la gën a xam li nga xalaat te woo ko sax yàlla xam na ko ñu jégalu li nga xalaat te woo ko yàlla xam na ko yabal ay malaaka yabaloo ni borom xam loolu responsabilité ci kilifa bu nekk ku taxawoon di def sacrifice ak di wax wax joo ñaaw ngir sa candidat di wax ci nit lu ñaaw loolee nga doon wax ëllëg yëmal xiyaam dina la ko laaj gi nga daan wax xam ngeen ne di ngeen kàddu yu rafet waaye di ngeen kàddu yu ñaaw nit ñi di ko wax candidat di ko wax jëmale ci moroom ay nitam di ko wax jëmale ci moroom yi nitam wala nangam dem nañ ba xam ngeen ni li ci li ci am ñaaw na lool am na ci bakkan yu ju tuuru yu ci rot loolu nag ka sabab loola ak ka ko def loolu yàllaa ngi leen di xaar dossier la boo xamante ni yàllaa ngi taxaw di xaar ndax sa intérêt da nga taxaw nga rey nit ndax ki nga rey yaa ko rey ndax yow mi ne yaa ko rey yooyu say mbir la ak yàlla yàlla dina ko lijjanti ak sa te di nga xam ne dara dara daray àdduna jaru ko woon dara dara daray àdduna jaru woon lool jaru sacrifice nit jaru wax wax ju ñaaw ci xamante ni ñoo doon laaj réew ku ci nekk da ngaa waxoon ne am nga programme pour bu la réew mi falee nga mën a doxal loolu nga dugg def sa campagne campagne boo xamante ni bu rafet la wane jàmm dugg ci roq-roqaan yi dugg ci gox-goxaan yi dañuy wax porte à ñu def ko ñun ñëpp ñu seetaan leen ci télévision yi ñu dugg dem nañ ba ci àgg ci am na ñoo xam dañ doon daw sax di wane ne am nañ activité wala jàpp nañ forme ah, ci seen i digg yi tamit ñu dégg ci yu bare bari. boo xamante wax nañ ko am jàmm di wax ay wolof yu set wicc di dugg ci biir réew mi dugg ci góor ñi ak jigéen ñi di wax ak ñoom di leen wax su ngeen ma joxee dinaa leen defal lii dinaa def nàngam loola ñoom wax dëgg yàlla ah ña ko ci doon wax kenn rek moo ci génn. kon kenn ki rek lan mën a ñëw ci moom li mu digge woon kon ab responsabilité bu rëy la boo xam te war na koo teg ci kanamu nit ñi war na koo def. mu bañ mel ni liggéey yu jëkk yi nga xam ne amoon na fi dina toog cinq ans wàññi sunu mandat loolu wax yeneen yu bari yoo xamante bu ñu ko reproché ak léegi dañuy xam ne yu baree bari amul woon ngelawaay ñu soññaat ko fàttali ko ne ko gor ak kilifa ak njiitu réew su diggee la mu diggee wax na lu mu ca man lépp mu def ko du lépp lu mu wax nag mu def ko loolu kenn du ko jàppal ndax xam na ne loolu mbiru yàlla la waaye la mu ci wax na ci jéem ba ñépp xam ne kenn du laayu kàttan fii la toll fii mooy yam waayam mu yam fa boobaa la ca des bu ko defee li mu war a def it ak yaatu ak ubbee xam ne Sénégal jàmm lañ koy yore jàmm ndax bi ñuy dem di campagne ñu leen doon gis ñuy ree di foog xale yu ndaw yi di wax ak màggat yi di wax ak jigéen ñi ngelawaay jàmm jooju moomu dàkk jàmm jooju lañ soxla ak noonu lu doon kafe nit ñi di jege nit ñi di xam lan lan bëgg di xam lan lan loolu ki toog na jël responsabilité am jege nit ñi jege boobu mu jege woon nit ñi di wàcc ci ñoom lu mu ci mënaat na ko def. lu ci mën a dund tamit na ko ay ndawam defal ndaw benn lu ci des mu am yërmande ni mu doon xëccoo réew mu xam ne moo leen jom moo leen gañe mu fas yéene ànd ak ñoom ndax bu fekkee ne ñoom ñoom ñëpp li doon bëgg liggéey réew mi kon ñàkk a toog wala ñàkk a nekk indiwaat sa xalaat du tee ñu ñàkk laa woon pour nga liggéey réew mi ginnaaw ñoom ñoom ñëpp amul nañ xalaat dégg naa ko ci wax ne ma ak diw sàngam position sax mais xalaatam rafet na ndax waxoon na ne bu noppee commune bu nekk dina ko def un milliard loola lu rafet la kon kooku nan ko bàyyee bu ñu ko sulee yee ko xëcc ko ci boppam xam ne yeneen dina leen man a joxaat yeneen ak conseil yeneen i xalaat loolu la ñuy wax ci candidat ñu ñëw ci journaliste yi journaliste yi wax dëgg yàlla suñu journaliste sénégalais yi fi mett na lool li mu gis ñun ñun citoyen yi doon ko déglu ci yéen doon ko xool ci téléphone télévision yi doon ko déglu ci rajo yi doon ko déglu ci sa sociaux yi seen liggéey rafetul de loolu nag taxul ne ñëpp laa wax ne seen liggéey rafetul waaye bu ñu seetloo ne gis nañ ne journaliste yi am na ci ñoo xam danoo faraloon ki fi nekk am ñoo xam danoo faraloon ñiy bëgg a toog journaliste la bu demee ba gis ne day far ba àgg ci kàddoom mu koy wax lu ñaaw ci ki fi nekkoon wala mu koy wax lu ñaaw ci ki nga xam ne toogagul loolu yaakaar naa baat yu ñaaw la yoo xam journaliste xamee wuñ ko woon noonu bëggoon mu équilibre di wax dëgg di indil information yu baax yoo xamante ni yu nu mën a tale la sunu xel mais journaliste bu toog di ŋàññi président bu fi nekkoon loolu gis nañ ko kenn du ko wedd gis beneen journaliste yoo xamante ni ñoom danoo faraloon ku jëli ndax loolu lañ leen doon doye ndax loolu moo nekk ci seen i ndax loolu moo taxoon ñu formuler ndax noonu lañ leen ko jàngale bu réew mi am na déception bu rëy rëy bu demee ba journaliste di far te nëbbatu ko di yëg ni dafa far di yëg ni dafa contre diw sàngam am ñoo xam dañu contre ki fi nekkoon jiitu réew dañu ko contre moom ñëpp xam waaye ñaaw na lool ñu gis journaliste bu far far nag ñaar moo koy def seen intérêt bopp xëy na lu ñu leen jox wala lu ñu leen defal wala lu ngeen yaakaar loolu moo tax yooyu nag bu ko defee foofu bi ñëpp jéppi nañ leen ñi ko doon def xam nañ ko ñëpp nañ leen cas boo ci fare rek am na ñu ñu kontaan cas bi nga farut am na ñu la mere. loolu day yàq seen valeur day yàq seen i ëllëg leneen lu ngeen mën te histoire bind na ko ba noppi fi mu toll élection deux mille dix-neuf yi histoire bindal na ay journaliste am na ñu mu bindal loolu nag dossier la boo xam seen i sët ak suñuy doom ñooy dikk wane ne yéen ñii ngeen doon liggéey nii ngeen doon liggéey ndax ñooñu keneen ku bëgg a def journaliste dina jël référence ci ñoom yaakaaruma ko ku bëgg a def journaliste bu normal boo xamante ni da nga ko def ci ci fulla ak ci fayda ak bëgg sa réew ak fonk sa réew ak dem dundal démocratie xam naa doo ko liggéeyee loolu da baat yu ndaw la ñi ko doon def leen roy ndax lu matadi kenn ko roy lu matadi loo xam ne def ci benn anam boo xam ne anam bu sérieux wul la loolu pour sérieux la roy te loolu faaw ñu wax ko loolu yaakaar naa ñëpp a ko xamandoo journaliste yi ñii dañoo faraloon pouvoir bi ñi fawaral opposition loolu nag ñaaw na lool ci réew mu toll ci démocratie bu toll nii te média am ci lu am solo journaliste am ci lu am solo ngeen dem ba àgg ci dayo bu néewu bu naw bi nga xam ne yéen bokk ngeen ñu rey démocratie ñi gën a rey démocratie bokk ngeen yéen journaliste yi doon def loolu duñ tudd benn tur waaye ci nekk xam nga sa bopp nga xam ne ñoo toogaloon ci urne yi di xool ku ci nekk candidat bu nekk ñu teexal la fenn la candidat ba am pour noppee ñu jébbal ko siis bi ñooña seen responsabilité mooy lépp lu fa leer ñu jël ko ci leer bu noppee ñu dajale ko yóbbu ko ci fa nga xam ne mooy kay àttekat bu mag ko loolu responsabilité la bu ko yóbbulee loo xamante ni du dëkk ba mu sukkandiku ci moom àtte bu boobaa nga xam ne bàkkaar bi ci ñoom lay ji boobu ci ñoom léegi ji masala diw sàngam am na téeméer ñu wàññi ko foofa yóbbul ko waaji ne ko ci juróom-ñaar fukk la am wala juróom-benn fukk bu boobaa bu ci sukkandikoo ba àtte yow yaa yaa ko yaa ko sabab bàkkaar ba bàkkaar ba yoonam nekku ci yow la moo tax yéen ñi doon doxale loolu na ngeen ragal yàlla te xam ne lu ci waay def yàlla dina ko réglewaat yàlla dina la ko àttewaat yàlla dana dana toog dossier yooyu mu réglewaat yow kon ngallaawaay su fekkee lu baax ngeen def sant leen yàlla tëdd nelaw su fekkee lu ñaaw ngeen def lu wéru lu jubul xam leen ne dina leen feeyaat ci seen bàmmeel ngeen tëdd di nelaw ñu yee leen régler leen loola mooy siis bi nga xam ne moo doon àtte yëf yi lépp nag ñu tegoon ko ci loxoom yonente bi salaa salaam nee na àtte ka ñaar ñi ña nga sawara kenn rek moo ciy dem àjjana loolu naa tiital kii àtte ñaar ñi ña nga sawara kenn ki mu nga àjjana kenn ki nga xam ne da doon àtte te xamul ba noppi xamul ne xamul ba noppi di àtte kooku bu boobaa sawara la jëm ki nga xam ne dafay doon àtte xam na ba noppi waaye dafa jëng kooku moom moo gën a metti ki nga xam ne xam na ba noppi ba noppi jëng kooku moom ki nga xam ne nag dafa xam ba noppi teg ca maandu di àtte ci dëgg kooku moom àjjana rek mooy àjjana ja gën a kawe muy firdaws foofu muy këram loola nag bu fekkee ci àtte def na ko ndax responsabilité bépp ci loxoom la mujj responsabilité bépp ci loxoom la mujj ñëpp moom lañ doon déglu am na jamono yoo xamante ni ñëpp moom la ñuy déglu soo àttee ci dëgg moog yàlla la su àttee ci beneen lu dul dëgg bu boobaa moog yàlla la bu fekkee na àddunaam moo ko gënal alaaxiraam na xam bu fekkee alaaxiraam moo ko gënal foo xam xamante ni mënoo faa dund ba dund fa daanaka téeméeri at yu mag ak foo xam da nga fa tëdd nangami million ngi at ñu lay régler ak populu Sénégal ni mu toll am ci yow yaakaar nga dem ngir sa intérêt bopp àdduna dong mu tax nga war popul booba ñépp nga amee àq popul bépp taxaw ci sa kanam boobaa ñëppay taxaw ci sa kanam ñëpp ñooy taxaw ci sa kanam Omar ibnu Abdou Aziz dafa mas a toog benn jamono di jooy jooy met métti ñu ne ko looy jooy mu ne te booba dafa jiite mu ne li tax may jooy dama xam ne am na ñoo xamante ni soxla nan ma te mënu maa jot am ñoo xamante ni war na moo ñëw ci man mënunoo agsi am ñu am soxla loola nag damaa xam ne ëllëg yëmal xëyam bu boobaa yàlla dina ma ko réglé te bu ma ko yàlla di réglé yonante bi laay taxaw jàkkaarloo moom ndax xeetu yonante di jooy bu boobaa yow na nga xam ne bu boobaa di nga ko régler ak ñi nga xam ne bu ñuy jullit da ko régler ak ñuy jullit loola nag dara dara dara yi àdduna jëru ko dara dara àdduna jërul alaxira bànneex jërul ñàkk tayel jërul gàcc dara dara dara yi àdduna jërul moo tax responsabilité boobu kon ko teg ci sa kaw na la yàlla gënal nit ñi na la dëgg gënal nit ñi na la maandu gënal nit ñi bu ko defee loola boo tëddee ëllëg yëmal sa àdduna dana baax sa alaxira wax dëgg du wàññi wërsëg du la aw fan wallaahi la si ki wax dëgg ci kanam nit ñi bu leen ñëpp jéemoon a rey jéem la fee jëli te yàlla naru ko du la def yàlla mooy wërsëgal moo yor kàttan moo yor lépp te yàlla xam na lépp kon mbir yépp mi ngi ci loxoy yàlla ñi doon woote seen i mbir a yàlla ñi doon laaj réew mi seen i mbir a ngi ci loxoy yàlla ñi nga xam ne ñoo doon journaliste te jàngoon seen i mbir a ngi ci loxoy yàlla ñi nga xam ne dañoo jubaloon seen i mbir a ngi ci loxo yàlla ñi nga xam ne tamit dañ doon candidat yi dañ leen a wóoloon ba nekk ñu teg leen fa ngir ñu jottaliwaat yóbbu yëf yi seen i mbir ngi ci loxoy yàlla ki nga xam ne moo mujj woon mbir yi di àttekat bi léppam mi ngi ci yàlla léppam ak dundam xamul li ci des bari xamul li ci des keneen ci doon woote xamul li ci des bari na xamul ñi jubaloon nag seeni i mbir yëpp ñi jubaloon ngir seenam réew ngir yàlla yàlla moo leen ameel ak pay seenam réew leen ameel ak pay Sénégal leen ameel ak pay muy jëmmi journaliste bi muy ki doon woote mooy ki doon laaj réew mooy ki nga xam ne kii daal kenn mënu koo wax lu mu jeex fii la ñuy yem ne mbir yi di sant ñëpp di gërëm ñëpp ki nekkoon ci caméraman Baye Sall soxna Awa mu nekkoon ci réalisation bi Baara moo nekkoon montoor ñu sant leen gërëm leen jox leen daje ci yeneen i jotaay asalaamaaleykum wa rahmatullah مرتجا منة لنا جريء ومد من سنوب ومن